jàpp ci social bi ñi nga xam ne jàpp nañ ci ñëpp am nañu cant yàlla na lu kawe seen njor ci luñ ñu di ko yokk te xam ne du mbir muy taxaw rawatina ci ji ñu toll ndax jamono am na fu mu toll te it ñi ñu ko jox ittewoo nañ ko lool. leeral gi président commission sociale bi def di Serigne Mourtala Abdoul Fattah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 liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñuy yëkkati bu mu laal suuf ilaawu kalimatillahi al ulya loolu dong muy liggéey bi وقال بكى على سادة أموات